waaw xam naa nag communication bi communication bi moo xaw des tuuti rek par rapport aussi ak ni mu xaw a jege ak tabaski bi looloo xawoon des waaw surtout loolu waaw intégré si ñëpp daf si am solo waaw loolu moom lu si am solo la. Mhm, mhm. Mhm. dëgg la waaw Maroc waaw. Cheikh Sadibou Sakho from Senegal against Gabriel Show, Gambia. mooy wane ne làmb daal père Sénégal rek moomul làmb. Sénégalais dañu foog ne ñoom nga sa ñoom moom làmb. xoolal ma trente quelques pays te pays bu nekk. du Sénégal. bu yàgg. ndax ku nekk xam na ne lutte olympique lutte libre. Mhm. lutte yàgg nañ ko dugal ci lutte olympique. te ba tey dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. ñooñu ñëpp yàgg nañu dem ci ay jeux mm-hmm. waaye bari nag am nañ médaille championnat d'Afrique. dëgg la Papa Diop jël na ci lu mat juróomi médaille. Mm-hmm. Touba Les lu mat fukki médaille. fukk mm-hmm. na ko sax. dëgg ak yeneen ak yeneen kon ñun nañ ci waaye li waaye heure duñu mm. gis duñu dëgg la day am. Mhm. boo demee stage bi nga xamante ni moo gën a métti ci wàllu bëri ci àdduna bi. Mhm. ñu ngi koy defe ay Bulgarie ay Roumanie ay Roumanie dëgg la. ñoo gën a na ci lutte olympique bi Bulgarie. Mhm. papis e papis wol a ngi noonu moo yore kilote bu bula bi ah, génne nañu ko Sénégal Gambie deux un la Cheikh Sadibou Sarr waa ji mel ni dafa gaañu de ci faar gis nga fi mu taf alastero yi noonu foofu lay làmb Gambien bi Cheikh Sadibou Sarr jëlaat na ko gañe da ko pe deux da koy nangu parce que arbitre na na kay Victoire pour Cheikh Sadibou Sarr Victoire waaw di ko seet si waaw parce que boo seetloo sax moom dafa dafa élastro ci faar bi faar bi noonu noonu la demee benn la parce que boo seetloo seen seen équipe bi rek maa ngi foto ak ñoom parce ñu si bëri xamante nañu te ñu si bëri aussi fii la ñu si bëri sax fii lañ dëkk. am na ñoo xamante ni fii lañ tëkk mais Gambie la ñuy représenté tey ku si mel ni seen catégorie plus de. te mhm. dañuy dañuy dañuy dund làmb moom. dëgg la. bëreem ak euh, Abu Njokkaan mm-hmm. ca la Abu Njokkaan gaañu bi ndeysaan rek maa doon combat spécial bi maa mujj yeggale la ay ba pare dem hôpital mm-hmm. mel noonu nag ah, day wane ni encore une fois xale la boo xam ni ci wàllu làmb war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax non seulement équipe bi nga xamante ni ci la euh, hmm. ci wàllu lutte ci wàllu lutte traditionnelle ci wàllu sax lutte avec frappe parce que def na ci ay jéego yu bare bare bare bare ku mel noonu nag aussi bu nekkee poids lourd ñëw ànd ak équipe dëgg yàlla wax nañ ko ko rafetlu. la ndax Sénégal ay poids mën a bëri. dëgg la moom nag dafa bokk a bëri xool ñoom Reug Reug ak ñoom hmm. am na fa place am na am na fa place parce que bëgg na mbir mi te nangu na see sonn nangu na si sonn moom général vraiment jàmbaar la il a waaw kon na na gën a góorgóorlu gars yi gën ko jàppale rek waaye waaw ay ca Mali Guinée aussi ñu ngi fi Uganda Uganda ñu ngi fi waaw. Mhm. Mali mos mhm. mhm. na dëgg la yàlla def na mujjul woon a am. dëgg la. Ah. dafa gaaw père. Ah, ah, daw na jël eh, eh, ko. daw na jël ko. dal na jël ko père. da koy daan xoolal daw na jël ko daan na ko jël bu rëy dañoo mën a bëre père. dina mhm. euh, mhm. hmm, si sori. Ah, mhm. Guinée ngi noonu. waaw Guinée tamit. Euh, gañe moom Guinée. Hmm. moo jóge kilote bu bu weex bi noonu. waaw waaye aussi beneen ñooñu tamit diggante Ouganda la. Hmm. ak Niger. ak Niger. waaw Ouganda Niger. ah kan mooy Niger. xanaa Niger a wër ndombo. Ouganda Niger. Hmm. lu xew. Niger tamit aussi Mhm. ci wàllu li traditionnel bi da ciy wane boppam. da boppam waaw na ci ay jéego yu yaatu yaatu. Uganda mooy Ugandais bi moo rasta noonu. moo rasta waaw Niger moo gagné. Niger waaw Niger nag yàgg nañ ci bëre per. mais Niger championnat CEDEAO bu mujj bi sax ñoom ñoo ko jël. waaw Niger ah, ñoom ñoo ko jël ci Sénégal. Ah, man na bu Sénégal nekkee numéro un ñoom ñooy numéro deux. waaw waaw ah, numéro deux yàgg nañ ci def ay jéego ak ku mel ni Nigéria xam nga nag moom mi ngi ci tous les rendez-vous waaw. moom moom ci sport yëpp la bokk ndax réew mu mag lañ nag waaw Nigéria réew mu mag la moo xamante ni football karaté judo boxe basket lépp a ngay dox waaw am réew loolu moo koy développé sport waaw loolu dafay am solo am solo ñi ngi eh, ndokkeel Bira parce que moom itamit bi mu ñëwee ba léegi ci ak ay ayam bari na loo xam ne ay innovation la